Pape Demba Thiam xanaa balaa ñoo jeexal rek ñu tënk ko très rapidement ci wolof kala kàllaamay euh, Kocc Barma di fàttali encore une fois que Pape Demba yow économiste nga yaa ngi yëngatu ci lépp lu jëm ci wàllum koom-koom yaa ngi dëkk Suisse liggéey nga lu yàgg ci Banque mondiale liggéey nga itamit foofu di OCDE am expérience bu ñu ràññee fii ci Sénégal ak ci international suba nat jiitum réew bi Bassirou Diomaye fay dina am uh, ab taxawaay réunion bu mu jagleel lii di secteur privé nationale bi woo ci patron privé yi secteur privé bi secteur national bi woo ci um, uh, surtout chef d'entreprise yi pour waxtaane lii di xëyum ndaw ñi alors yow est-ce que di nga fekkee boobu jotaay bu fekkante ni itam uh, doo teew fële ca pale ban jàngat euh, nga ñu ci mën a amal ak lan moo ci euh, sa xalaat. maa ngi lay gërëm euh, di la sant li sa xel dem ci man ba nga may laaj lan laa xalaat ci ndaje boobu nga xam ni président son excellence Bassirou Diomaye fay daf ko woote pour waxtaan ak ñi nga xam ni ñooy dugal seen xaalis ci koom-koom te mu mën leen jural ñu jàppale ko ci sëyu ndaw bi lan la ñu mën a waxtaane waaw man nag kenn invité wu ma ci waxtaan boobu mais man tàmm naa ni mel na weñ boo xam ni boo ko invité wul ci ci ci lekk gi tamit mu ñëw bokk ci parce que def naa dama am cër ci dëkk bi ba pare am cër ci àddina am cër ci Afrique parce que loolu laa yéemee yéemeele sama bopp te loolu ci leen la mën a nattoo mais defe naa nag président Bassirou Diomaye Faye ak ñi mu àndal bu fekkee ni seen xel demul ci man ci invité ma ak li may bind ak li may jëf ci këru àddina yëpp c'est que parce que man dama bokkul ci kuréel yi nga xam ni Sénégal ñoom ñoo séddee géew bi pour waxtaanee li nga xam ni moom moo jëm ci lu jëm ci koom-koom. parce que dëkkuma Sénégal même bu ma fa bëree tànk ba nit ñi def ni fa laa dëkk dëkkuma fa parce que ci Afrique yëpp ci àddina bi Amérique latine laay liggéey moo tax nag ma rafetu li nga xam ni. yéene nga ma ko ba laaj ma ki sama xalaat euh, man lu ma xalaat daal euh, moom mooy ndaje yi yàgg na am président bu fi mës toog indi na fi waxtaan yu mel noonu te gisuñu lu mu jur dama yaakaar ne nag di li ñuy laajte niñ koy laajtee mooy problème bi parce que nit mënul tontu que ci laaj boo xam ne dafa leer or bu ñu nee déjà xëyu ndaw juum nañu parce que xëyu ñëpp la parce suñu dëkk ni koom-koom bi doxe dañ ko defarul ba nga xam ni dafa mën a indi ay engagement yoo xam ni nit ñi mën nañ ci dugal seen xaalis pour yaakaar ci génn ci lu ëpp li ñuy dugaloon ba mën a tax ñu jox liggéey ku mu ti doon loolu nag loolu mooy problème bi parce que même boo ñëwee léegi ni daje ngaa gars yi di leen waaw wax leen ma lan ngeen xam ci xëyu ndaw si lu ñu lay mën a wax rek mooy ndaw ñi bëri nañu amuñu liggéey te loolu xam nga ko donc looloo tax li ñu war a seet moom mooy nan la ñuy mën a waxtaanee te problème yu mel noonu ci ay sart yoo xam ni dana permettre président de la république ak ñi mu àndal ak gouvernement am xam lan mooy seen wàll lan mooy seen cër te na lañ koy doxalee te loolu nag defe naa ni liggéey boo xam ni dafa dafa laaj li tubaab di wax expertise parce que nee nañu boo jàngul alxuraan mënoo ko tëri